waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah yow yaa kan waaw bi ma ciy def nag dana am solo ah, man maa ngi wuyoo ci turu Babacar Touré ñu bari xame ma ci baabakar mbay maa ngi nekk Amérique ah, yàlla dogal lii fekk ma fi ah, garga ki nga xam ne nii doomam la su si man jógee fii ñëw dal si sama kër nekk fa man ñuy dimbalante ci lu bari. ba yàlla dogal man ma jóge fa ñaari weer ci gannaaw ñëw fii euh, lii fekk ma fi mu xoo ma wax ma ko euh, kon mën naa ko fi teewal mun fi teewal bépp koo xam ne ni immigré la <coughs> nekk Amérique euh, ma teewal leen fii ci dëj bi soxna si wax dëgg yàlla mu nekk soxna soo xam ne am na yaakaar ndax li yàlla sant li yàlla digle ci koor ah wax dëgg yàlla ku ko dégg te xam ko ak ni maire bi demee di nga am ci moom yaakaar ndax euh, ña fukki fan yu mujj yi tolloog laylatul qadr yàlla jël ci bakkanam tabarakallahu ko naqaru a ñaanal waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla yàlla yàlla na dajeeg yàlla euh, lu mu baax baax baax dana xam ne yàllaa ko gën a baax yàlla na yàlla fay ko yiw yàlla bu kanamam finna yàlla bu gannaawam finna lépp lu fi bay yàlla na ko yàlla barkeel yàlla na yàlla teg njab loxoom ci njabootam barke Moustapha alayhi salaam loolu daal lañu leen doon nuyoo di leen sant yéen ñëpp di leen jaale li ñu bokk ñun ñëpp. ñu ngi leen nuyu ginnaaw bi ñu la jaalee li ñu bokk. maa ngi leen ni fay di leen di siyaar bu baax di leen ko jaale yéen tamit di bokk ak yéen tiis bi dañuy wax xaaru inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rek ki fi jógee sunu yaay la ndax ñu nag ay doomam ñoo bokk ci benn milieu bi ñuy yëngu muy benn beneen bi ñu bokk ak ñoom benn koñ ñoom ñu yàgg nekk ay mbër ñu yàgg nekk xale dem seen kër. kon am na lu ñu mun a seede ci maire bi en tout cas maire bu baax la ko am yërmande la waaye am nañ njort bu rafet ñun ñëpp ci ci moom ndax fi ko suñu borom moomee mu tombeek weeru koor ba pare euh, tombeek fan yi fukki fan yi mujj yi dal na ko yàlla att ci yërmandeem di ko jaale njabootam yëpp di ko jaale njabootu làmb particulièrement Garga Mbossé ak Sos ñoom suñuy grand frère lañ ba ñu bokk ci même milieu bi quoi kon su seen waajur dëddoo rek ñëpp fi war a teew di ko jaale seen famille yëpp ko jaale képp ku nekk ci làmb wax yàgg seen loxo te ñu yéex ko faylante ñu ñu dundee waaw ñu ñu ñu ñu dundee ko ak philosophie xam ne sunu borom lu mu def rek xam na ko ndax tey boo xoolee sos bi mu fi jógee léegi yàggul te ñëpp na nañ maire bi feebarul wala boog du feebar boo xam ne kenn yéeg na ko lu bett la kon yàlla moo xam lu tax mu tracé noonu xaj na ñoom xol yu bu ñu am seen waajur wala ni seen waajur mel si ñoom moo tax sunu borom doxalee ko nii en tout cas fa ñu nekk daal yàlla nañ fa yàgg di nekk ak jàmm di mën a ñaanal seen waajur ba dellusiwaat ci réew mi ñëw fii sukk seen kanam waajur ñaanal ko waaw ndax nit ki moom fépp foo nekk rek yàlla fa mu la yóbbu yaa nga fa foo nem rek yàlla la yàlla na leen yàlla may xolu muñ rek si barke Seydina Mohamed hmm. Euh, sant yàlla bu baax. bàyyi la nga fàttali ñu tur. man Bamba. li nga xamante ni moom moo di rob waaye jur bu Zos ak Garbu Gamboose génn àddina ñu doon ko denc fii tey ci Cambérène yàlla ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko xaari ko aljanna ñu bëggoon a xam rek quelque ay témoignages si. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah di waxaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci sunu yaay ji nga xam ne moo génn àdduna tey ah, di ko wax suñu borom bi yal na ko suñu borom jéggal. xare ko àjjana firdawsi si barke alquran garga ak ñoom nga xam ne ñoom ñoom la jur ñàkk nañ mais ñun tim ñàkk nañ ndax suñu yaay la mën naa wax ne seen kër la ñu fréquenté tout le temps ndax garga depuis ba léegi ñooy ànd di defandoo lépp dugandoo ci même sport bi ñoom ñëpp yëpp ñoo si nekk yàlla def li gën waajur mu jigéen yàlla def na fekk ko fi waaye am na ko taxaw ci ginnaawam maire bi tëdd de wax dëgg yàlla képp kuy ndaw daan ñëw kër ñoom Garga Mbossé mën nga wax ci moom lu baax barki alxuraan ndax dafa uufoon ay njabootu jàmbur comme ay doomam waaw man moom li mu ci man moom saa maa rey wax dëgg yàlla kon nañ koy ñaanal fii mu tëdd gënal ko fi mu jugee ci barki alxuraan bépp ñaan bi fi waaye ñaan rek xam na ko suñu borom bi nangu ci barki alxuraanu karim daal yàlla daal mooy def li gën jaam ak yàlla ak dogalam waaw waaye suñu yaay ji moom wax dëgg yàlla lépp lu waay wax ci moom rek am na lu des am na ndax ñun xam nañ ko bu baax moo ñu yar xam nañ ko wax depuis ñu doon booy ba léegi chaque bu ñu demee këram ni garga voyage boo demee këram day mel ni garga la jàkkaarloo day mel ni doomu bu mu jur la jàkkaarloo te loolu yombul kër ga daan fees dell guddeeg bëccëg suba ngoon doo gis mu onk doo gis mu ne onk wallaahi alxasim bu amee lu baax sax ay doomu jàmbur la koy gën a yéene ko doomam kon loolu yombul nekkul te bu yàlla defee li gën si fukki fanu weeru koor yu mujj ah xel dal na de métti na nag mais sant yàlla ndax kulli nafsin saa'iqatul mawti la yàlla wax bakkan bu ñoom dunu di ñam de kon dañuy santat yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla ñu fi tëdd yàlla yërëm leen jéggal leen ci barke alquran asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw maa ngi xanaa di wax ay kàddu njaal rek te di ñaan te xam ne nit moom bu génnee àdduna ay ñaan la gën a soxla suñu yaay ji yaay ju baax la woon wax dëgg yàlla yaay ju ufoon njaboot la woon yaay ju kenn yabul la woon ndax xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax xanaa di jaale sama frère Garga Mbossé Zos dafa aas ñoom ñëpp maa ngi leen di jaale di jaale waa kër gi yëpp di leen xamal ni nag métti na parce que ñàkk yaay métti na rawatina euh, mu dëddu la sa ginnaaw mu dëddu la sa ginnaaw da uti pour teeral ko nekk sa bopp mu dëddu la sa ginnaaw loolu métti na torop torop mais yàlla na leen yàlla may xolu mun di leen ñaanal nag fi ñu nekk yàlla na leen yàlla dolli doole kàttanal leen ba ñu résister lii nii te xam ne mënul jaas aduna ñëpp dinañ ci jaar ñëppay dem mais yàlla na rafet yàlla na ñu fekk comme ni mu fi fekkee suñu yaay jii demam bii dal na xel rafet na defar na boppam door a dem di ko ñaanal suñu borom yàlla na koy suulal ay ay bakkaaram bu baax a baax leen jaajëfal yéen tamit seen taxawaay rafet na trop yaa ngeen jëf jaajëf. sant yàlla bu baax di ñaanal way dawlu yàlla yal na yàlla yërëm ko taxare ko àjjanay firdaws ak mbooloomu jullit yu fa fekk muy naqaru met ndax euh, kenn yéenewu ko kenn sax mais man Garga da sama waay nekk sama nit sori ci moo tax ba ma yeewoo dem ubbi Facebook xaw ma Instagram gis ko dama tiit dama coupé sama connexion. xam nga mu nekk lu métti ñu koy ñaanal yàlla moom Mbossé ak euh, frère am ay sœur am yëpp yal yàlla may leen xolu muñ ndax waajur dafa métti ku ko ñàkkul rek mënoo xam métti waayu ñàkk sa waajur ñun ñii jaar nañ moo tax buñ gisee ku mu dal ñun sax ñoo lay ëpp naqar yow ndax dañuy xam li ngay dund wante nag ki moom sa alal saa bu la neexee sañ nga ko jël te suñu borom moo ñu moom ñun ñëpp kum si neex ak saa su ko neexee ak nu mu ko neexee noonu la lay jëlee. kon ñu ngi koy ñaanal di ñaanal mbooloo mi jullit yom fa fekk suñu waajur yeeg ak mbooloom waajur yëpp yal na yàlla yërëm leen te xare leen àjjanay firdaws jërë ngeen jëf ah, waaw tey kii bi métti métti dal nañu ndax ah, garga muy garga di zos ci nekk am fu mu ñu féetee yaay boobu doon suñu yaay booy boo xam ne wax dëgg fa yàlla doom yëpp la yemale woon doom yëpp la yemale woon dëgg fa yàlla fu mu munti toll li ñuy nemmeeku ci lu ñu nekk daal tey ji bu ñu xëyee tiis yi daal suñu kaw dañ koy delloo ci yàlla suñu borom te xam ne moom suñu borom dee la njëkk a bind ko dund adduna moom kuy li ñu nekk daal moom mooy dal na ko suñu borom yërëm xarit ko àjjana àjjana di këram mu am fay immeuble yi yaatoo yaatoo yaatoo wax yaatu yaatoo te métti na nag ay doom nekk bitim réew seen way juru jigéen wàcc liggéey ci seen ginnaaw métti na lool lool lool lool mais yàlla mooy seet ni mu ko neexee mu dogalee ko noonu waaw bu xamoon nu muy demee wax dëgg fa yàlla doo gën réew mi fekk denculoo sa way juru jigéen mais comme nii la ko suñu boroom dogalee ah dañuy jël lépp rek daal di koy jébal yàlla buur bu tedd bi nga xam ne rek ko mu jël suñu way jur woowu dugal ñu ko àjjana fi daw si loolu daal la ñuy ñaan bu baax a baax a baax jërëjëf Garga ak Zos ñu nekk rek soxna Diouf dégg nañ léegi ci ay témoignage ñu ne rek dafa julli fajar ba noppi daal di génn àddina mu mel ne rek li nga xam ne kon moom la ko suñu borom sant ca la nekkoon ba daal di ko wuy ji xanaa rek dañuy jéema dugg ci biir ngir jéem xool ñenn ci ay doomam rek ñoom itam ñu def rek quelque ci ay témoignage am suñu yaay bi taxaw ko na alaaxira mel ni galaas ci barke yonante bi gisante Muhammad sallallahu taala wa jabar jabar bi na ko yàlla yàlla jéggal yal na ko yàlla xaar ak baax na ndànk lay dox keroog rek la dox ne ma man de damaa war si bu man dinaa la seet si dem ma dégg ne na law na koo wax mu ne kii la dégg ci conférence bi kon nag jaan wàcc na ah mu nga arjana nañ ko ñaanal rek yàlla suñu borom seddal suufam bu gisanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi nag maa ngi jaale Garga di jaale Ousmane jaale Sos man na yaay Omar yaay Amet Diouf may wax moom ci barke yonant bi sama xol sedd na waaw jërëjëf. kàddu yi am na solo bu baax a baax dañuy jéem a xool rek ñeneen ñi nga xamante ne soxna si ndax mën ngaa def def ci témoignage rek ca suñu rajo yëkkati ay messages. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer koor bi di baalu ñëpp ah di leen baal ah ndax mère bi de suñu yaay ju baax la moom sama yaay ay xarit lañ. comme mag ñi liñ daan def naan dañuy tegoo ay lam liñ daan def seen tuur yi moom sama yaay ñoo. jàppalante ay lam waaw ñu xaritoog moom sama yaay du fi gëj nee na bi mu fi gëj léegi matul 10 jours ñi ngi dëkk fii ci ginnaaw man magu Ousmane la moo naan ànd ak Garga Mboos ak daan yor seeni tumukaay magu Ousmane la mi ngi Italie mi ngi woote sax ndeysaan di mas woo ko jaale waaye daal am nañ ci njortu lu rafet ku fanaan ci guddi laylatul xadar ñu fanaanee wasifa mu faatu nii ah yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xëppee ji àjjana tey dama toog du xaw naa métti lool ci ñi nga xamante ni ñoom ñoom daal di rek nekkee ci dëj bi dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne yàlla nañ ko wax kàddu yi benn la ñëpp ku ci nekk itam da ngay wax rek ni baax la woon ku amoon yar la ku amoon dal aussi. yaakaar naa ne nag soxna Juma moom bëri na fu nga xamante ni wax dëgg yàlla toll na fa askan wi ndax ni ngeen ko gisee góor jigéen mag ndaw ñëpp rek ñu ngi nekk fi nga xamante ni moom moo di si dëj bi ñenn ñi sax di jooy kenn mënatul leen téye dëgg yàlla mu nekk itam lu lu metti loolu ay ñu jéem a dugg rek ci biir xool ba xam dinañ am quelque rek ñu fa mën a def ay ay ay témoignage ñu avancé si biir xool rek ba xam dinañ am kenn ku nga xamante dina mën a yëkkati ay kàddu